mbokk yi am contentement ak mbégte dalal tey ñi nga xam ne ñoo di waa Croix Rouge cellule bu Cambérène ñoom la ñu fas yéene dalal ñuy waajal ay événements yu am solo du ñu ci ñëwagum dañ leen di bàyyi ñu daal di nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo di mbokk respectateur ak internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan door a ñëw ci li nga xam ne moo di waxtaan bi dañu koy doore ak ki nga xam ne moo nekk suñu ndeyjoor euh, Souleymane Sow maa ngi lay nuyu. bon maa ngi lay fay euh, salaamaaleykum euh, ñuy nuyu ñëpp man maa ngi tudd Souleymane Sow nekk volontaire Croix Rouge Cambérène merci. ok Souleymane Sow moom itam dafa ànd ak ay jigéenam ànd ak eh, ki nga xam ne moo di eh, Mama Lay Mama Lay ñu ngi lay nuyu eh, gërëm la bu baax a baax ci teewaay bi ci Lou'Bess TV. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen di am contentement ci invitation bi donc Mama Lay la première vice-présidente comité local Cambérène responsable camaraderie Cambérène. Mama Laye moom itam ah, teew na ci li nga xam ne moo di plateau bi sama xarit la mise à part loolu DJ Allo s'il te plaît suñu événement bi DJ Allo ñun waa Croix-Rouge ma ne ko Maguette euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax Allo man la Maguette Dramé comme ni nga ko waxee di volontaire comité local Cambérène. mu ngi noonu waa comité local bu Cambérène la ñu dalal tey ci Croix-Rouge ñoom itam ah, di eh, am taxawaay bu am solo bu ñuy taxaw ci li nga xam ne moo di zone ah, Cambérène beeg li ko wër gis nañ événement yu ci mënti am seen taxawaay. waaye ñu koy rafetlu dèjà di nuyu eh, kilifa ya fa nekk yëpp alors ñuy dugg si ci li nga xam ne mooy leen fi tax a ñëw eh, ñuy waajal ay mbir yu am solo ren nag fa seene eh, nekk li nga xam ne moo di troisième édition bi ñuy jël ay ndogu di ko yóbbu ci ñi nga xam ne ñoo di kaso yi ren ñu war a dem fële ca fi nga xam ne moo di rëbës balaa mooy dugg ci waxtaan fàttaliwaat bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi bu leen fàtte ñooñu ci ay ñaan parce que ña leen fa dugal tuuma ak ndog ndog dugal na fa doomu aadama te wallaay ni jombut kenn nañ leen di di leen ñaanal bu baax baax baax alors dañuy dugg si ci li nga xam ne moo di waxtaan bi maman laay euh, ngeen di waajal li nga xam ne moo di euh, ndogu yi euh, jëmale ko fële ci fi nga xam ne moo di Rebeuss lan moo tax ngeen di organiser li ni mel. waaw comme ni ñu koy faral di waxee troisième édition ko dégg xam ni tàmbalewul démb wala tey donc première édition bi sabab bi li ko indi mooy dañu amoon suñu benn naataango ku ñuy wax Birama nekkoon ak ñun ñuy defandoo activité yi ndogu si quartier yi comme ni ko association yi bari defee ak ay ONG yàlla dogal nag euh, natt dal ko si Covid bi bi ko natt dalee bi aussi ñu nekk si di lijjanti di lijjanti ñu gii ñooñ ko wàllu viol ba yoon téye ko ba koor nag fekkaat nu si si loolu nag si lañ toog xalaat ni pour pourquoi pas ñu délocaliser ndogu bi Cambérène yóbbu ko Rebeuss donc loolu si sabab bi si moom la jógee Birama Niang xalaat bi foofu la jógee ñu jëlee ko Cambérène yóbbu ndogu bi Rebeuss première édition bi mi nekkoon rëbës kese deuxième édition bi nekkoon rëbës ak campénal mooy maison jiyee ñi troisième édition bi nag cette fois si rëbës la campénal ak forbe waaw. waaw trois différents lieux la nekk troisième édition bi nii nii. d'accord mu ngi noonu comme ni mu ko waxee euh, da nga may paasal micro bi mu dikk ak ñoon ci li nga xam ne moo di euh, pourquoi ngeen choisir euh, Rebeuss déjà moom leeral na ko mais Camp Pénal Forbé lan moo tax ngeen choisir lii yooyu noonu. bon déjà comme ni mu la ko waxee ki ko doon defal moo waroon gën a yokku tax ñu choisir rëbës première année dem nañu rëbës ñu xam ne carrément que ni fii nii Dakar nekkul rëbës kese moo fi nekk comme prison ñu ne comme te rëbës góor ñi rek moo fi ne pourquoi pas tamit duñ ci daal di boole jigéen ñi. lool moo waral deuxième année bi ñu daal di dem camp pénal dem nañu camp daaw ñu ne ba tey duñ yem foofu noonu ku ñu xam croix rouge xam ne ci affaire jeunesse la ñuy dox ñu ne kon pourquoi pas duñ ci boole xale yi loolu bi di ren incha allah ñu daal di siy boole fort bi préparation yi fu mu toll déjà pour waajal li nga xam ne moo di ay ndogu yéen waa croix naka ngeen ko fas yéene doxale bon comme ñu ko xamee événement bi le 8 la ak le 9 avril incha allah am na avant mooy am na pendant am na tamit après avant mooy depuis premier jour koor ba tey bu ngeen seetloo ñu ngi def ay quête collecte de dons fële ca jàmmalaay dañuy dugg ci Cambérène bi yëpp dëkk bi yëpp ñu yëgal leen que ni carrément ñun dañoo am événement bu ñuy organiser dañuy def distribution de ndogu ak de don ci prisonniers yi donc xale yi suñu xale yi mooy suñu aspirants yi ànd seeg mag ñi mooy responsable yi ak animateurs yi chaque jour de 15 heures à 19 heures ñoom ñu ngi dugg ci dëkk bi di yëgal nit ñi dëkk bi di def ay collecte parce que ñun li ñu wax li ñu wax aider nu à aider da ngeen ñuy dimbali ngir ñu mën a dimbali doomu aadama donc loolu moo waral suñu lépp lépp lu ñuy def daal ci ay affaire collecte lañ ko def ak tamit bon volonté yi nga xam ne ñoo nekk Cambérène chaque jour du ñu dooleel ñoom ñoo ñuy jàppale donc fii ba le 8 avril ba le 7 incha allah collecte de dons la ñuy def le 8 ak le 9 mooy daal di nekk événement bi donc foofu tamit dañuy daal di def collecte mais comme bii Cambérène lañ yemoon bii dañuy daal di génn dem côté rond point Abass Ndao côté boobu la ñuy ket dem ba rëbës muy le 8 ak le 9 incha bu ñu ketee ba benn heure bi muy affaire de 15 ñu daal di arrêté dem ca fa ñu war dal daal toog préparé ndogu yu foofu noonu comme ça 19 heures eurodoc incha ñu dugg ci quartier bi daal di def suñu distribution muy le 8 ak le 9 bu ñu paree ci le 8 ak le 9 bi ci la ñuy jàppee benn jour parce que ñëpp xam nañu prison il faut ñu jàppal la bés pour que nga may ay plastique foofu mbiskit lépp dañuy dem toog ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison bi directeur yi laaj leen carrément ñoom prisonniers yi lan la ñu soxla carrément à travers ñoom li ñu wax ne loolu la ñu soxla loolu la ñuy dem jéem a jëndi daal di leen koy jox jéema a xool leen ko matale incha allah donc événement bi noonu lañ ko daal di daal ma dënmalee avant pendant ak après incha allah. Uh-huh. Souleymane yow góor nga te ku wax góor wax ne góor moo war a gën a mën actif ci genre événement yi ni mel alors yéen seen taxawaay ci ci ci li nga xam ne moo di événement bi lan la. bon xanaa di si am taxawaay bu wéeg rek comme ni nga ko doon defee saa su nekk boo xoolee cette année si euh, je suis le coordinateur maa ngi ànd ak euh, tata maman ñoo siy liggéeyandoo si coordination bi. <laughs> no ñun ñun ko waa moom loolu la moom ñëpp tata tontoo lañ aussi ñu ànd ak suñu chargé de la communication muy tata Maguette bon ñun ñu ngi siy amal taxawaay bu am solo parce que tat màgget mu ngi koy wax ñun depuis loolu tooguñu tooguñu benn yoon. mën nañ ne activité bi moo ñu gënal lu ñu am dañ kaa jël def ko sunu sunu lépp la am te ne activité la wala la am te ne sunuy programme la dañ ko jël wéer ko ci activité bi ñu si dawal ne jéego yi am solo góor comme jigéen parce que Croix-Rouge boo fi duggee moom mooy cellule ba am te ne mënoo xàmmee bu liggéey jotee mënoo xàmmee góor mënoo xàmmee jigéen ndax ñëppay takku lu góor war a def jigéen da koy def lu jigéen war a def itam góor da koy def du ñu xaarante si dara wante lépp lu ñu mën a tënk rek mooy. ñu ngi si bu baax ñu ngi si taxawaay ñu ngi wàcc fu nekk ñu ngi taxaw fu nekk te yaakaar nañu communication bi itam mu ngi jàll fu nekk parce que boo xoolee tànk sànq Tata Maguette mu ngi koy souligner que ni xale yi premier jour koor ba tey ndogoowuñ seen i kër tooguñu seen i kër ñu ngi si terrain bi ànd ak ñun responsable animateur comme aspirant yëgle activité bi fépp ñu ngi def aussi des collecte de dons fépp ñu ngi seeti itam des bon volontaires bon volonté yi nga xam te ne ñoo ñu mën a jàppale ñu ngi dem itam ci euh, secteur administratif bi fépp foo xam te ne yaakaar nañ ni bu ñu fa demee suñu activité dina jaar yoon ñu ngi fay taxaw parce que activité bi euh, ñu ngi koy wax du lu ndaw ndax ku commencé si benn cellule dem ba trois cellule nga xam ni loolu du parce que boo xoolee première édition si benn prison la ñemoon deuxième édition ñu yokk beneen muy ñaar. troisième édition ren ñu nekkaat ci trois te ñaan nañ yàlla itam quatrième édision ñu raafale prison yi nekk Sénégal yëpp parce que mooy suñu mbëbët wante itam ñu ngi ñaan buñ koy defaat ñu ànd ak suñu camarade bi bi nga xam te ne si honneur am lañ koy defee ñu ngi ñaan buñ koy defaat mu ànd ak ñun ñu génn di ko def loolu la ñuy sàkku si activité bi. en tout cas kon instant bi su ma la déggee mooy que ni góor yi jël nañ këll yi comme ni nga ko waxee gars yi yi commencé dugg ci biir koñ yi euh, bureau yeeg li ni mel bàyyiwoo leen fenn instant bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ fenn parce que boo xoolee sax maa ngi koy wax sànq bu ñu defee collecte le matin ak ngoon si bu ñu ndogoo pare da ngay gis dañuy duggaat ci kër yi def ay VAD ay 0 vingt 23 heures la ñuy dugg suñuy kër kon activité bi daf ñu jagal daf ñu jagal lu trop góor comme jigéen ñu ñëpp dañuy takku takku ba mu dëgër ngir activité bi guddi gi yëpp boo xoolee booy génn sax. di nga daje ak waa croix fan yii moom fës nañ trop si dëkk bi ndax activité bi wante lépp rek ngir ñaan activité bi jaar yoon aussi ñuy ñaan beneen yoon mu gën a yokk waaw loolu daal mooy mbëbët bi. alors maman euh, Maguette wax na ko sànq nee na euh, avant la pendant ak après donc avant mooy ñu waajal pendant mooy ñu joxe après après bi laa bëgg nga ñëwaat ci gën ko expliquer mbokku téléspectateurs yi nan naka lay demee parce que instant bi ñi lay seetaan ak ñiy bëgg a jàpp ñëw xam programme yi naka lay demee yamu leen dong ci ndogu yi après ndogu yi yéen a ngi xalaata defaat yeneen activité sociale yi nga xam ne mu ngi seen kanam. waaw comme ni ko sama tout le temps day yëngatu si activité yaakaar naa sànq bu ñuy dugg ñu ngi lay wax ni kay ñu des fois dañuy toog sax improviser activité si si dëgër fit ak euh, am suñu xolu humanité jàpp ne ñun même bu ñu jàppee activité à une semaine day réussir ñun loolu mooy suñu philosophie donc ñun comité local Cambérène mosuñoo dellu ginnaaw si activité booy xool calendrier bu ñu yor programme bi ñu yor c'est trop trop chargé par ak euh, mën naa wax yéen activités yi nga xam ni peut-être gars yi moom la ñuy dérouler donc euh, pendant moom wax na ko dañuy dem quartier Rebeuss def ay ndogu si quartier bi dugalaale ay ndogu si biir prison bi jàpp ay yeneen jour def ay don après bi nag boo ko déggee mooy den leen évaluer di leen toog xayma activité bi ñaata koppar lañ ci def koppar yi nan la def ba ñëw kan ak kan moo su dugal loxoom lan lañ réussir lan lañ réussirul defaat suñuy perspective pour année prochaine donc loolu mooy doon phase après bi suñ génnee si loolu aussi am nan programme comme ni nga ko waxee programme la dañuy am jeunesse ak secours jeunesse boo ko déggee mooy sànq yaa ngi dégg maanaam responsable camaraderie mooy cellule de base bi nga xam ne moom mooy dajale képp kuy ndaw ku waaru chaque samedi ñi ngi koy defee école 1. comité local boo ko déggee mooy responsable ñi nga xam ne tey dañoo jógee si camaraderie màgg def seeni formation am ay expérience ñu yéegal leen comité locale si comité local boobu mooy saluer de passage tata Ndeye Fassaw Mbaye muy Ndeye Mbaye moom mooy présidente comité local bu Cambérène donc cellule boobu aussi dañuy liggéey def seeni programme teg ko. si côté jeunesse ak côté secours côté secours mooy li ngeen di faral di gis sol suñuy dosaar taxaw si diine ji wala des fois ay émeute su amee si dëkk bi. ñu instant bi naa di ngeen secours ba dool gars yi dox di daanu ci koor gi bëri nañ de. <laughs> non ñooñu moom dama leen di bàyyee xam naa xam nga ña ngeen yëg faale ni lay doon ak gayee ni ñoom ñooy faral di daanu ah waa kon secourisme am na njëriñ comme ni nga ko ni nga ko waxee donc ñun suñu activité basé wul si ndogu bi kese peut-être ndogu bi mën na wax ni activité phare la parce que comme ni ko Souleymane waxee kin koy defal kin koy defal ki tax idée bi ñëw kooku moo moo moo moo moo nu ko jaral. mais en en parlant de kooku muy suñu frère Birama Niang donc ban message ngay adressé aux autorités sénégalaises yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci li nga xam ne moo di kaaw. waaw loolu li ma ciy wax mooy euh, Birama sunu sunu sunu ndaw la ndawu Croix-Rouge la donc fu ñu waxee ndawu Croix-Rouge maanaam personne humanitaire la koo xam ne nii day dox ci ay action humanitaire te lépp loo xam ne daa nga si gis waa Croix-Rouge daa nga ko si gis moom Birame muy ku ñu amal solo jëmma junu amal solo la jëmma joo xam ne aussi yaa xam te ne mu dellu si suñuy biir parce que dinañu manqué si activité yu bëri yu ñuy faral di def ñu tourné tey duñ ko gis si dooleem xam-xamam ay compétence yoo xam ne da ko yor doon si amal njëriñ mais aussi doon si amal njëriñ dëkk bi ñu nekk muy Cambérène te yaakaar naa loolu yemul si Croix-Rouge kese ba si diine yi mën nañ ko seede loolu donc appel bi ñuy def mooy que ni ñun ñëpp xam nañ ni yoon bu la téyee am na lu muy liggéeyee ñun waxuñu yoon bu mu liggéeyee noonu mais dañ ni ko dañ ni yoon na woo suñu njoñ mu déglu ko parce que loolu droit am la parce ku toog trois ans si prison kenn déglu la benn audition nga am ak procureur depuis loolu amoon jugement kenn auditionné waatu la donc ñun côté boobu loolu lañuy def appel maanaam procureur ki ngay xam ne nii moom lépp wàllu yoon moom lañ ko dénk moom lañ ko teg si loxoom dan ni que nanu woo suñu njoñ Birama Niang mi ngi rëbës naka déglu ko juger ko entendre ko comme nu ñuy entendre ñëpp su defee ñu xam ne dafa def su defulee nag mu libéré ko comme ñëpp mu libre ñëwaat si ñun ñëwaat suñuy activité appel boobu la ñuy def di wax nag képp kuy autorité si Cambérène moo xam chef religieux nga wala politique nga wala apolitique nga am doole wala boog sa loxo am fu mu jotee ñu ngi lay woo pour nga jàppale ñu si dossier parce que def na presque trois ans rëbës ak condition yoo xam ne ni aussi wax dëgg fa ne yàlla du yoo xam ne ñun kontaan nañ si parce que feebar na fa jëlee dañ ko fu rëbës yóbbu ko Dantec jëlee ko Dantec indiwaat ko rëbës donc mu nekk loo xam ne nii vie bu métti la si moom wax dëgg fa neex yàlla donc ñi nga wax autorité yëpp si jàppale ñun li ñu bëgg mooy mu dellu si suñu loxo nan ko woo parce que loolu droit la ku la téye war na la mën a woo wax ak yow donc ñun loolu la ñuy ñaan procureur naka woo déglu ko su fekkee dañ ko war a libéré nan ko libéré mu dellu si waat suñu biir donc demande boobu la ñuy def. Uh-huh. en tout cas ñu ngi ñaan libération moom suñu frère boobu di Birama Camara comme ni ñu ko waxee euh, ñu ngi ñaan yoon euh, woolu ko def liggéey bi war ci moom daal di koy mën a bàyyi mu dellu ci njabootam parce que bu dul dara doomu Cambérène la bu dul dara doomu Sénégal la bu dul dara élément biir Croix-Rouge la kon donc kilifa la aussi tamit euh, ci li nga xam ne moo di askanam mm. donc comme ni ñuy faral di wax rek foofu nag jombul kenn. Euh, naam ko tuuma ak ndog ndog dina fa dugal doomu aadama waaye tamit ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax ñoom ña fa nekk ñëpp suñu borom defal leen jàmm ba caabi ji mën leen féetee kanam ñu delluwaat seen njaboot ma des fois su ma ci ñoom sama xool dafay tooy parce que yow nga nekk ci biti nekk ci jàmm ñoom xamoo ci li ñu nekk ndax ñu ngi nelaw ndax ñu ngi lekk wala ndax ñu ngi naan en tout cas c'est un peu difficile euh, ñu ngi ñaan libération ki nga xam ne mooy suñu frère Birama Camara que ñu ñu bàyyi ko euh, mu delluwaat ci li nga xam ne moo di njabootam alors Maguette damay ñëw parce que instant bi déjà je commence à avoir les larmes aux yeux euh, donc euh, dafa métti ah dafa métti trop franchement famille ak ñëpp boobu ba tey dégguñu dara ci moom dégg naa sax force yooyu pour jot ci moom sax des fois jafe na pour nga dem seeti ko gis ko. donc loolu yëpp euh, ñuy ñaan rek suñu borom may ko jàmm bu ñu mën a dellu soit ci njaboot justice na def liggéey pour Birame Camara mën ko libérer ñi nga xam ne ñoo di ay waa këram wax dëgg yàlla métti na trop dama bëggoon nga ñëwal ma tuuti ci li nga xam ne moo di euh, point li nga xam moo di get point yan point la ñuy lañ lañu focaliser pour des fois ñi nga xam ne bëgg nañu andi seen ndimbal pour ñëw jàpp ci li nga xam ne moo di événement yi fan lañu war a. d'accord déjà ñun tous les jours comme ni ma la ko waxee boo demee rond point jàmbalaay ñu ngi fa toog noonu suñu check point déjà nii rek suñu éléments yi ñu ngi foofu noonu toog xale yi di di distribuer flyers aussi teg foofu seen seen seen table ak yooyu pour nit ñi donc ku ñëw foofu noonu dans tous les cas dañu fa fekk maison de la femme bii bu Cambérène suñu check point bu bu bu gën a mag mën naa ne foofu la nekk maison de la femme ku ñëw foofu noonu incha allah aussi dañu fa fekk suñu affiche aussi mu ngi jàll. mu ngi jàll partout am na numéro de quête aussi collecte numéro ba nga xam ne am na Orange Money am na Wave am na lépp boo lépp loo ñu mën a envoyé foofu mi foofu noonu. léegi. mën nga joxe waale numéro bi bu fekkee yaa ngi ak moom mën nga ko joxe waale c'est pas euh, message dañu ci euh, jàpp bu baax a baax nga mën a partager numéro bi ak internautes yi pour ku ci bëgg a jàpp ak téléspectateurs yi ñu mën cee dugal seen loxo ñoom itam participer ci comme nit ñu koy waxee rek euh, ndimbal. baax na lool surtout genre événement yu mel nii parce que man dama bëgg koy jàppale doomu aadama te di kanam tuuti naa leen laa sax benn message parce que gisaat naa moment euh, à bu ñu génnee ci prison yeeg yëpp jàll ba li ñuy ñaan suñu borom nangul ñu ko les enfants de la rue xale yi ci mbedd mi ak jigéen ñi ci mbedd mi fajar gi 6 heures du matin toog uuf ñaari xale tàllal seen loxo. te yooyu yëpp dañu soxla li nga xam ne moo di ay ndimbal donc mën nga partager numéro bi. vite fait 76 286 08 56 donc voilà numéro boobu noonu am na lépp am na lépp euh, am na Orange Money am na Wave am na lépp loo ñu mën a envoyé waaye aussi ñu xam ne jëluñu rek ay dons en espèce kese dañuy jël don en nature parce que comme ni ñu ko waxee dañuy def distribution de dons kenn képp ka nga xam ne am nga leneen loo ñu mën a dimbalee la nga xam ne nekkul xaalis dañ koy jël dañ koy jël carrément donc ñun ñu xeebuñu yéemuñu wax dëgg neex yàlla bañ nañ ko ba suñuy affiche dañoo wax 200 lañ ko commencé pour nit ñi ku ñu mën a jàppale donc ñun ñu kenn xeebuñu fukki dërëmu jàmbur xeebuñu juróomu jàmbur xeebuñu cent franc jàmbur ndax juróom yooyu ak fukki dërëm yooyu ngay xeeb moom moo lay jural lu bari tey jii juróom yooyu moo ñu indi fii moo ñu indi première édition indi ñu deuxième ba indi ñu ren ji troisième édition te incha allah moo ñu nar a continuer ba vingtième édition incha allah donc xeebuñu ñu képp ku ñu jàppale rek incha allah dañuy daal di jël en tout cas mu ngi noonu comme ni ma koy waxee donc ñëpp war nañ ci mën a jàpp ko am darab andil ko am suukar mbuusu tàndarma géej gi bàyyiwuñ lépp ñun lépp lañ soxla euh, lépp lu waaye am rek lu mën a xam ne boo ko joxee rek nit ki dina ko jëriñoo rek donc ñu ngi tàllal suñu loxo pour ngeen jàpp ci li nga xam moo di événement bi maman question boobu dencal ma ko ma ñëw ci li nga xam ne moo di Souleymane donc euh, ci nga xam ne moo di euh, donc message yi nga xam ne jàllale nañ ko mais aussi tamit yow ban message ngay lancer jeunes yi nga xam ne ñoo lay seetaan surtout jeune u Cambérène yi donc par rapport ak événement yi nga xam ne jëm si ngeen ko toog ñoom bokkuñu croix rouge war a mën a ñëw teewee li nga xam ne moo di événement yi jàpp ci. bon ah, activité bi suñu yëf la ko quoi mais yëfu ñëpp la euh, mën nañ ne ñëpp a ko bokk parce que ki tax ñu koy def ki tax ñu de délocaliser ndog bi ba yóbbu ko rëbës euh, doomu gen la donte élément Croix-Rouge la woon mais ñun ñëpp a ko bokk kon yaakaar naa jeunesse Cambérène bi war nañ see mën a jàpp war nañ see mën a teg seen loxo war nañ see mën a itam dugal seen loxo wante daf fekk ni rek euh, Croix-Rouge moom yàqul day defar. te si defar la dëkk ndax ñun ñii si bokk xam nañ ci dara te yaakaar naa jeunesse bi Croix-Rouge mooy mouvement boo xam te ne li mu def si jeunesse sax moo ëpp donte jeunesse indiwul essence de de sa naissance wante jeunesse bi la gën di mën di dox euh, dañuy appel ñi nga xam te ne ñoom ñooy jeunesse bi ñu teg seen loxo si activité bi di fàttali lépp di fàttali ñëpp ni Birama Niang jeune la woon. jeune bu engagé la woon ku dynamique la woon nga xam te ne ku nangoo woon liggéey la woon donte nag tata wax na ko léegi ndogal la kenn mënu si dara wante tey war nañoo def benn sorte de sensibilisation ba ku nekk xam fi ngay teg sa tànk parce que yaa ngi koy wax sànq say biir wax nga ne prison euh, ndogal dafay dugal nit tuuma dafay dugal nit kon du du ñuy def kase ñoo fa nekk kon yaakaar naa ku nekk si ñun ay njàngat la rek yuñ si war a def. ñun ñëpp jeunesse bi yëpp ku nekk xam fi ngay teg sa tànk xam itam li ngay def parce que tuuma moo gën a métti sax def ñu jiñ la tuuma parce que yenn góor moomu ko góor àttanu ko xanaa léegi ñuy sensibiliser euh, jeunesse Cambérène bi ak képp kuy jeune ndax yaakaar nañ ni ndogu bi fu ñu ko présenté mu dugg ci ay xolu nit fu ñu ko toog wax nit ñi am su leen métti parce que ku dem bay dimbaliwaate te yàlla tax volontaire am leen lu tegu ci kawam kon yaakaar naa loolu métit la dafa metti dafa metti kon dañuy sàkku rek ñëpp jàpp si ñëpp teg seen loxo waa Cambérène bu ñu fàtte ne Birama seen doom la woon seen frère la woon te bu ñu fàttee itam ne ndogu bi laataa Birama di nekk fële ñun fii lañ ko doon def ak ñoom fii lañ ko doon def ak ñoom kon tey bu demee ba lii am ñu koy yóbbu fële kon ñun ñëpp ñu jàpp si ñu taxaw si en masse aussi di fàttali ne am na ay t yu ñuy jaay ak ay lacoste ay t-shirt ak ay lacoste pour képp kam te ne bëgg na participer ci activité bi t-shirt yi ñu ngi fi lacoste yi ñu ngi fi ils sont disponible ñu jéem a jàpp ci activité bi ku si nekk def ko yëfu boppam. en tout cas mu ngi noonu euh, message la aussi itam ba nga xam ne lancé nañ ko association yi nekk Cambérène aussi itam bëri nañu. donc ak yenn euh, jotaayu kilifa yi tamit mag ñi fi ñuy toog di waxtaan ak yooyu li gars yi naan penc. donc yooyu tamit bëri nañ ñoom tamit euh, bu leen xeeb fenn dugg leen fépp dem leen fépp ngir waxtaan ak ñoom ñu mën a ñëw jàpp ci bés yi xam naa nag ñu ngi ci cëppaandaw gi euh, damay jox maman parce que question boobu dafa ma intéressé trop su may xëy si des fois vers 6 heures wala 7 da ngay gis ay jigéen ci kaw euh, teritoire bi uuf ñaari xale kenn kiy nàmp kii ñuy tàllal seen loxo naam ko ñooñu tamit genre activité yu mel nii dañuy soxla ndimbal yu mel noonu. Mm-hmm. waaw ñun moom comme ni ko Souleymane mi ngi koy wax sànq si biir waxam ñun ndaw ñi moo yokk tax ñuy liggéey ndaw ñi moo yokk tax ñuy liggéey su nee ndaw ñi nag du ndawu Cambérène kese parce que ñun dañuy génn dem ci yeneen activité yoo xam ne nii soxalul sax waa Cambérène donc mo soit suñu yeneen naataango ñoo koy organiser ñu dem wala ñun ñu gis ni tel lieu wala tel sit ñii soxla na ndimbal ñu toog saytu ko parce que sànq maa ngi lay wax samay biir wax que ñun suñuy suñuy activité amul non événement bi moo am lan def lii non non non ñun des fois dañuy toog nii sa benn kër dinaa ataaya nii ñuy seetaan actualité gis ni problème am na si tel site wala lii am na ñu ni nan lañ siy taxawee nan lañ si indee suñu suñu apport suñu touche donc yaakaar naa ni nga li wax nii aussi lu lu am am solo la te yaakaar naa am na programme yu gars yi taxawal si sunuy programme annuel yoo xam ne nii wàllu ndimbal la wàllu social donc sànq Maguette mi ngi lay wax social yemul si prison yi kese dañ koy def ñun suñu biir des fois nga gis kenn koo xam ne dafa am problème ñu def social si biir dëkk bi des fois aussi comme ni nga ko waxee ñu gis ni ah romb nañ tel site tey exemple mën naajee si xale yi daara yi peut-être ñi nga xam ne dañuy fàkkee ay daara wala ñuy am problème seeni kër fàkk ñëw am na si ñun ñoo xam ne ñu ngi siy liggéey donc mu nekk projet boo xam ne nii peut-être yaatalagun ko carrément carrément parce que li nga dafa xaw a fragile ay doomu jàmbur lañ de deux aussi peut-être tey am na ay droits internationaux ak national yi nga xam ni tey ñoom ñoo ñoom ñoo protéger xale yooyu noonu te ko wax Croix-Rouge xam ni du Croix-Rouge Cambérène wala feneen Croix-Rouge international la ONG bu mag la donc am na tey peut-être am na moment yoo xam ni suñuy liggéey wala boog si yenn sujet yoo xam ni suñu siy liggéey am na protocole boo xam ne war nañ ko jël parce que comme ni nga waxee ñun comité local la comité local tey bu fi yenn activité de grande envergure suñ koy def ko exemple ndogu bi nekkul comité local Cambérène lan koy defee dañuy génn dem ci beneen zone am na procédure boo xam ne foofu la ñuy jaar pour amal ko day dem département dem ba national ay déclaration yoo xam ne dañ koy def day ànd ak fiche technique voilà donc yeneen zone la parce que activité bi tey jii du Camb Cambérène moo initié activité bi moo koy def mais yeneen comité local yi nga xam ne ñi ngi Dakar ak département yi dañuy def seen délégation ñëw day day day sensibiliser ñu bëri bëri bëri ñoo xam ne peut-être tey mënuñu def activité bu ni mel mais tey ku nga Cambérène initié naka dafay def ñoom dañuy ñëw indi seen touche comme kii nu mu koy waxee da ngay gis koo xam ne ñëwul mais day jënd tiset wala day jënd lakos tiset bi ak lakos bi da koy moom mu def participation symbolique am si biir activité bi donc li nga wax ni si cadre jigéen ñi ak xale yi nga xam ne tey nekk si si mbedd yi yaakaar naa loolu moom dinañ si gën a tenir donte ñi ngi si incha allah xool nu koy gën a yaatalee te xam naa ne bu gënee yaatu incha allah rabbi yéen aussi di ngeen si seen wàll dina ñëw fii incha allah gën ko yaatal kon ko tey ndogu bi rëbës bi mënu indi carrément. en tout comme ni may faral di wax rek ñun moom lépp lu jëm ci wàllu social. Mhm. Euh, dañu ci open pare ci ngir jàppale ci ak képp ko ci taxaw. donc ñu ngi si cappaandaw gi damay bàyyi Souleymane mu joxe moo de la fin ci émission bi. donc ak ñi nga xam ne mooy dernier message bu muy lancé donc Souleymane kontaan naa trop ci teewaay bi nga ñëw gunge euh, maman laay keneen ki moom du ma parce que daf ma sonaloon trop di allo di allo émission bi mooy loolu euh, donc kontaan naa trop ci teewaay bi. bon ñoo leen gën a kontaan parce que euh, toog di wax nit déggu la yombul wante di fàttali ñëpp ni rek ni activité bi lu ñu soxal la te ñuy ñaan. képp ka am ne day def te yàlla tax wala képp ka am ne social dalay tax a jóg nga jàpp ci komba bi parce que ñun social moo ñu tax a jóg et c'est pas la première fois ñuy def ay social mën nañ ne nag mooy suñu activité bu gën a fës ci wàllum social wante Croix-Rouge day mouvement am te ne foo ko fekk ci social lay dox parce que ay volontaire lañ dañuy def te te yàlla tax te ñun ñooy def te duñ ci séntu dara loolu mooy ko rouge ñun ñooy def te duñ ci séntu dara saa ngi ne Tata Maman wax na lu am solo ñun dañuy ñaan lekk ki nga xamante ne moom moo tax ñuy def ndogu bii nii buñ koy defaat ñu ànd ceeg moom layaluñ ko net layaluñ ko plaideluñ ko wante dañuy ñaan rek que mu def liggéeyam parce que loolu mooy li am solo justice def liggéeyam parce que ñu fàttali ñam di Birama doom la doom la te. alhamdulilah alhamdulilah c'est émouvant donc comme ni ñuy wax rek euh, metti na torop àndandoo ak sa benn naataango jékki-jékki euh, yoon. teg ko loxo boobu ba léegi ñetti at taxawut xamuñu ci lan la nekk c'est un peu dur en tout cas euh, ñu ngi ci cëppaandaw gi maman ma bàyyi la rek yow itam nga daal di joxe sa mot de la fin jamono ji nag xool yëpp ay tooy mais euh, ça va difficile mais mais ñu ñu ñu delloo lépp ci loxo yàlla suñu borom moom mi nga xam ne lu am moom la lu xew moom la mu leeral lépp. waaw man sama dernier mot dama koy adressé peut-être autorité Cambérène yi mais di ko adressé aussi chef religieux yi. Euh, am na fu Souleymane waxee sànq mooy que ni ñun dëkk bi lañuy ñuy liggéeyal te li ñuy liggéey si dëkk bi kenn fayuñu aussi kenn atribuer wu ñu budget nii waa Croix-Rouge li leen koy jox si budget pour muy def activité yi muy def parce que ñun man mën naa exemple si man bi ma nekkee xale am ay sept ans laa bokk Croix-Rouge ba nii may waxee ak yow ma fekkee fu ne dañ jox budget nangam pour waa Croix-Rouge mosul am ñu ñooy def suñuy propre moyen ak bonne volonté yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy jàppale te mën nañ si cité ñu bëri si biir dëkk bi ñoo xam ne tey dañuy jël seen alal def ko si ñun boole ko ay conseil ay encouragement donc yaakaar naa ne tey Cambérène suñu amee tey ONG bu mel ni Croix-Rouge si biir dëkk bi muy liggéey si domaine yëpp nag domaine sanitaire Croix-Rouge mi ngi fa assainissement Croix-Rouge mi ngi fa tey jii boo demee si wàllu éducation Croix-Rouge mi ngi fa tey boo demee si wàllu religieux Croix-Rouge amul kenn koo xam ne dala tëjal portam wala mu ni kii laay liggéeyee wala du ma liggéeyee kii croix mooy eh, ONG boo xam ne xàmmeewul Lou'Bess TV xàmmeewul keneen xàmmeewul kii doomu sëriñ la xàmmeewul kii politicien la moom lenn rek moo ko ñor mooy doomu adama donc ñuy liggéey si lu mel noonu si dëkk bi yaakaar naa ne tey suñu amee problème bu mel ni ku mel ni Birama nekk si yoon bokk si ñun te dëkk bi ñëpp xam ka te Birama liggéeyalul woon kasi Croix-Rouge te yaakaar naa monde entier ñu ngi may dégg Ibrahima lu mu liggéey si diine ji sax mu ëpp fuuf fuuf fuuf lu mu def si croix rouge ku nekk fii Ibrahima taxaw na la ku nekk si dëkk bii nii mus nga xewle Ibrahima ñëw def si tuusam donc yaakaar naa ne tey bu nekkee si problème yu mel nii kenn ku nekk si ñun war nga jug d'autant plus que mu dëkk si dëkk bi bokk ak ñun si deret waxuma la croix rouge mais dafa bokk ak ñun si deret ay famille sikk famille yu mag si dëkk bi fii tey tey ku wax fami ñangeen xam ne famille bu mag la si Cambérène ku wax famille Thioubène xam ne famille bu mag la si Cambérène Birama ñun la bokkal donc ñi lancé waat appel ñëpp si dëkk bi ñu ñëw waxtaan ak waa croix ñu xool xeex bi nu ñu koy gën a xeexee parce que ñu ñëpp ñu ngi si mais xeex bi du leen nekkul ay gën a toj miir wala kii mais justice la ñuy demandé si biraama ñaa ni ñu koy demandé mooy ñëwoo ko déglu ko comme sànq ni ma waxoon li nga xam ne nii dafa def boobaa ñu xam ne dafa def justice ni ah ñu nangu ko deful ñu ni ah deful ñu libéré ko mu ñëw donc loolu la ñuy ñaan di wax autorités yi aussi ñu leen gëstu croix rouge nañu gëstu croix rouge bu baax a baax a baax a baax a baax donte nag ñun xaaroon na ko si ñoom yaakaaroon ko si ñoom parce que ñun ñi ngi def depuis boobu ñi ngi def depuis boobu donc nan gëstuwaat croix rouge bu baax parce que croix rouge ay doomu Cambérène lay liggéeyal ay jeunes Cambérène la nekk di former si cellule de base yi tey di def si ñoom xam-xam def si ñoom yenn personnage yi ñu koy jël di ko def si xale yooyu ñooy màgg yor dëkk bi man suba damay dem keneen day dem xale yooyu noonu ñuy formé tey ñooy màgg yor dëkk bi donc ñun relève la ñuy préparé yaakaar naa relève boobu nag ñëpp war nañ ñëw di si jàpp donc man appel boobu laa am ci li may wax après ça di remercier bépp boo xam ne nii jël sa xaalis wala nga jël sa don en nature def ko si croix la si activité local Cambérène yëpp parce que ku dégg Croix-Rouge xam ni tollu nii mais comme ni ko Maguette waxee xay na activité bi tey moo tax ñun ñu ñëw suba di benn activité mën na am yeneen tet ñoom ñooy ñëw donc di leen remercier bu baax a baax di am contentement aussi si invitation bi. merci beaucoup Mama Laye moom itam euh, ki euh, bokk ci Croix-Rouge bu local bu Cambérène donc euh, dama koy tëjee ak ki nga xam ne moo yor wàllu communication Maguette donc moom itam. Euh, yaakaar naa émission bi liñ ci waroon wax yëpp wax nañ ko ci donc ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak li nga xam ne moom ñoo di mbokk téléspectateurs yi nga doon seet. waaw déjà ñu commencer par remercier leen yéen waa Lou'Bess TV parce que c'est pas évident ngeen bàyyi seen temps bi yëpp surtout un jour de dimanche accueillir ñu fii vraiment nous vous te li ngeen di wax ci wàllum social bi. day koy gën a firndeel parce que saa yu ñu fi ñëwee ngeen ubbil ñu seeni porte vous êtes open macha allah télé bi nekk télé yi gën a mag incha allah fii ci Sénégal olof dafa ne feccum liir bu neexee rek ndey ja moo téye kon dafa fekk ni ñun dafa am ña nga xam ne tey ji fu ñu taxaw fu ñu fëggee seeni porte dañuy tijji taxaw wax ak ñun ñi nga xamante ni tey ji bu ñu amee fitu taxaw Cambérène wala du fi dox chaque jour gëm naa ni ñooñu ñooñu moo tax ñu koy commencé benn ci suñu marraine marraine Croix-Rouge Tata Marie Ndiaye fépp fu ñu nekk fépp lu ñu activité bu ñuy mën ci def dina ko yëg te dina si dugal loxoom ba pare ñu conseil orienté ñu donc mënuñu def ñun dara te remercier wuñ ko di remercier tamit tonton Mamour Ndiaye chaque jour mu ngi fi ba mujj vendredi lañ gëj këram tonton Libaas Mbuub tamit munuñ koo fàtte tonton Pape Diop tonton Seyna Aan bëri nañu mais dafa nekk ñii ña nga xam ne activité bu ñu mënti def chaque jour ñu ngi fi ñu ngi ñuy jàppale pas seen doole mais seen xel seeni xalaat seeni orientation loolu rek dafa doy tonton Ran Gueye tonton Tata Awaka ñooñu mënuñ leen ñàkk remercier mënuñ leen ñàkk remercier tamit ancien comité local noonu lañ leen di tuddee ancien mais ba tey ñu ngi ci comité local ndax chaque jour ñu ngi def seeni doole ñu daal di teg nuyoo bi si tonton Seyna Ndiaye ak Tata Mantu ñoom ñaar ñooñu la ñuy tëgg ñoom ñu daal di koy jaarale ci ancien yëpp incha allah xam ni carrément certes li ñu leen di gis bëriwul waaye seeni xel seeni xalaat ak seeni doole chaque jour mu ngi ñëw ndax taamama genre taamamaay saa yu ñu jaaxlee kat dañ leen di woo téléphone ñu daal di ñuy tegaat ci yoon ni ñu jaar leen fii jaar leen fii wala jaar leen fële des fois ñu gis ñu xaw a déraillé ñu woo taamama wala ñu woo Tata Ndeye mooy suñu présidente comité ni ñu kat jaar leen fii wala jaar leen fële meneen bi di remercier suñu aspirant aspirant camarade de Cambérène surtout ñooñu parce que comme ni ko Souleymane waxee sànq depuis ba ñu commencé ket ba tey chaque 15 heures ñoom ñooy jiitu ci école ba ñooy mujjee ñibbi dañuy ket bi mën nañu xaaj bi yëpp ñoom ñoo koy def ñoom ñooy dox ñooy wax ñooy jëf donc mënuñ leen ñàkk remercier te ndogu lañ ne koor lañu ne ñëpp xam ne koor dafa xat parents yi dañuy soxla seeni doom surtout jigéen ñi defar ndogu yee kër yi mais seen i activité yëpp la ñuy bàyyi ñëw uniquement pour réussir activi activité bi donc activité bu

mi boo ñëwee biir croix rouge activité bi sentir ngi ci sa bopp social ngay def carrément te social def te yàlla tax rek moo la tax a jug seen too si dara ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu ñu jéem a xool na la ñuy liggéey incha allah parce que li ñuy def nii c'est une cause noble wax dëgg neex yàlla dimbali ña nga xamante ni ci prison yi lañ nekk genre c'est une cause noble ba nga xam ne ñëpp si war jàpp mbiru Sénégal la mbiru àdduna la mbiru ñëpp la parce que kenn ku nekk muy yow wala sa mbokk wala am nga kenn ka nga xam ne mu ngi foofu ñu tëj te bëgg nga tey ji mu génn donc cause noble la ba nga xam ne on fait appel à tout le monde ñëpp ñëw jàpp si incha allah ñu daal di dem muy le 8 ak le 9 avril incha allah xeebuñu ñu lu ñu waaye mën a jàppale ñu ngi toog di la xaar képp ku ñëw suñu check point principal bi mu nekk rond point jàmmalaay incha allah ñu fa fekk suñuy affiche tamit information yaa ngi fa numéro yi nga mën a woo aussi pour ñu jox la ay information ci activité bi moo ngi fa merci beaucoup di ñëpp. merci beaucoup recevoir leen ci plateau bi kontaan ci ñoom bu baax a baax nuyu kilifa yi nekk foofu yëpp ci croix rouge donc comme ñu ngi ko waxee euh, quatre points yi donc rond point jàmmalaay ak fi nga xam ne moo di euh, maison de la femme mais aussi tam bu leen neexee fii ci lu Lou'Bess TV bu fekkee mënu leen dem foofu lu ngeen fi andi fii ci Lou'Bess TV dinañ fexe ñoom tamit ñu jot ci donc kontaan ci ñoom ñëpp jaajëfal leen bu baax a baax di leen kontaanee jàngeen jëf mbokk yi ba beneen incha allah.